Euh, contexte bi ñu nekk xam nga Sénégal ñu ngi jublu nag ci ay élections élection euh, présidentielle ñu bëgg mu am ci jàmm ak salaam ak ci dal euh, yàlla def nag ñu am am chance am njiitu réew bu mat sëkk li mu doon président Macky Sall nga xam ni moom biñ ko falee ba léegi 2012 noppaluwul tàyyiwul ci liggéey luy jëmale Sénégal kanam ñun ñëpp analyser nañu PSE euh, discuter nañ ci tey si tey ji wax li mu réaliser yëpp bare na mënuñu ko wax lépp boo jëlee énergie déjà li mu ci def 500 mégawatts la fi fekk tey jii xam naa ni sorewuñu 1000 1700 mégawatts wala ñu dépassé ko euh, li mu def ci infrastructure ci autoroute yi 32 kilomètres 2012 mu ñëw ba léegi euh, dépassé nañu ay 200 kilomètres d' autoroute dont il a Touba Euh, li mu def ci wàllu voirie li mu def ci wàllu semaine de fer li mu def ci wàllu port li mu def ci wàllu aéroport li mu def ci wàllu pont li mu li mu def ci wàllu autopont euh, yooyu yëpp dafa doon loo xam ne yu am solo la li mu def def ci njàng mi def ko ci éducation def ko ci enseignement supérieur Euh, def ko ci file sociaux yi nga xam ne ñu néew doole yi bourse de sécurité familiale couverture maladie universelle carte égalité des chances euh, li mu def ci mbay mi li mu def ci càmm gi li mu def ci napp gi ci napp gi ñëwaat naa ak ñoom sax wax leen ni mais dañuy dégg toujours ñu naan dañoo jaay géej gi dañoo def lii loolu dara amu ci ndax Sénégal boo xoolee dëkk yi ko wër euh, nga jaar jóge Maroc jaar Mauritanie jaar Sénégal jaar Gambie jaar Guinée Bissau ba ba ngay continuer dem ba Guinée Euh, protection bi ñuy def état Sénégal di ko def ci géejam euh, du ma ñeneen dëkk yi defuñu ko mais ñu foofu ndax président li mu def ci quai de pêche yi 2009 2012 9 quai de pêche juróom-ñeent quai de pêche moo amoon président tabax na lu lu mat 11 quai de pêche euh, durant li mu fi nekk li mu def ci ay aire de transformation benn président ma su koo def képp kuy jënd moteur ñu jox la un million loolu dañ ma wax benn dëkk moo koy def fii daal ci ci dëkk nappkat yi. ku bëggul jàppale napp gi doo def loolu jël un million nga jënd moteur bu jar un million trois cent cinquante mille wala un million quatre cent ñu jox la un million gratuitement. Euh, essence bi ñuy lakk at mu jot quatre milliards la état bi jël subventionné leen pour ñu mën a jënd essence bu yomb pour dem ci géej gi donc loolu ku ko ku bëggul sa pêche doo ko def mu voteloo à l' assemblée nationale une loi euh, mille quinze loi boo xam ni dafa protéger pêche artisanale jël ay daan yu mag teg ko ci. ñi nga xam ni ñoom la ñu def pêche bi nga xam ni mooy pêche INN mooy pêche euh, la pêche euh, illégale non déclarée non réglementée parce que pêche industrielle aussi dafa baax ci réew mais bateau pêche industrielle yi Sénégal am boo ko comparé ak yeneen dëkk yi yeneen dëkk yi ñuy séq fii la gën a néewe ndax dañoo protéger pêche euh, pêche artisanale fii par exemple Sénégal benn kii rek la am benn accord de pêche rek la am ak Union européenne ak ci benn espèce ñu koy wax le thon ak tuuti merlu lu sax ñu bare xamuñu muy loolu luy loolu parce que daanaka sax duñ ko lekk Sénégal te pêche boobu thon boobu li ci ëpp mooy pêche artisanale bi du egg ba foofu ndax dafa xaw a sore donc yooyu yëpp waxtaan nañ ci nag après jublu nag ci li nga xamante ni mooy liggéey bi ñun ñu ngi ci biir parrainage bi bu baax a baax parrainage citoyen parrainage boobu nag la ñu bëgg chef de village yeeg imam yeeg notable yi notabilité yeeg say coutumier yi nga xamante ni eh, ñoom ñoo fi toogal aada ak cosaan ñu dugal ci seen loxo ak ndaw ñi moo tax kuréel yi ñuy commencé waxtaan kuréel par kuréel eh, lancé nañu suñu parrainage à l'échelle départementale on a demandé à chaque commune mu lancé ñi ngi ci gis ngeen dans le département communes yi commencé nañu di lancé seen parrainage mais dafa am kuréel yoo xam ne dañu am solo imaam yi dañu am solo pour ñun chef de village yi ak eh, ñi nga xam ne ñoo yor cosaan ak aada ñooñu nag la ñu woowoon tey pour waxtaan ak ñoom te waxtaan wax dëgg yàlla aw na yoon rafetlu nañ ko lool lool ñu gërëm le chef de village de Sangalkam muy El Hadji Soukou Diouf nga xam ni moom mooy porte-parole association nationale de chefs de village ba pare jiite l'association nationale de chef de village au niveau régional moom it ci taxawaayam bu mat sëkk bi nga xamante ni taxaw nañ ko ci suñu arrondissement ak ci suñu département